waaw bëggee naa la. nga war a laale sa diggante ak Neko mu nekk ndaanaan ci làmb ñu gëj ko gis mu ñëw Malick Ndiaye xanaa di nga gis caméra bi ay Malick lii lu mu doon ngay war a préparer bis bu rëy nan nga ko waajee ak ñun tabaski ba mu des juróomi fan ngeen war a laal. waaw waaj naa ko ak samay mbokk comme ni ma doon waajee yeneen lamb yi rek mais lamb yi dafa raw lamb yi dafa raw si sama. waaw parce que lamb ji maanaam li ma wax rek dafa am si lu ma jugee te dafa am si loo xamante nii dama si war a dem comprendre nga te man nekkuma koo xamante nii xam nga maanaam ku ndaw si làmb daal moo tax làmb ji làmb ju ma fonk la làmb ju ma respecté la te le 25 juillet la ñuy xam ndax bëgg naa làmb ji wala bëgguma ko. ñu bari dañuy wax ni euh, ki nga xamante ne mooy Neko Rell la ndaanaa la mais taay bi day tax boo ko duggee du jeex ban stratégie nga mën a def ba daan. man Neko Rell bëri naa ñu ko sut Mamady Ndiaye moo sut Neko Rell. Mamady Ndiaye waaw moo sut Neko Rell Tapha Tine 2 moo sut Neko Rell ñoom ñëpp dama bëre ak ñoom dama leen daan man njool jaaxaluma daal non xeex ak bëre ban moo ci saafanta dañuy xeex dañuy bëre. boo ko doon woo ci si xeex ak bëre yëpp. la première fois ngay préparer combat mu fekkee tombeek tabaski juste ñu tabaski ba des juróomi fan nga war a bëre noonu noo koy waaje waaw bu dee si arène mi ngi soo a am mais bu dee si mbapat xam nga jamonoy mbapat na nga korte ba suba gi bëre. da nga daan tabax si ba suba gi nga bëre kon loolu du dara comprendre nga. li des saal mooy ñu mobiliser ñu xool nan la ñuy def ba le 25 juillet stade bi fees dell xam nga yi ñëw promoteur bi bég yàlla may ñu ndam waaye. jaajëf jaajëfati. mbër siyaar naa la ne ko réel. waaw ah, gars yi baax. voilà. jàmbaar la mu doon xale boo xamante ne ndaanaan la ci lamb ñu gëj laa gis gëj a gise bi lan la ak préparation bi nu mu demee. waaw préparation ñu ni ah. comme gëj a gise bi nag nekkul corona baa taxoon mais comme corona bi instant yi gars yi xaw nañoo bàyyi ñu lii ñu ngi kaw entraînement yi quoi. ñu bari dañoo namoon sa ci làmb parce que xale nga boo xamante ni bëre nga tàkkusaan bu ne naam mën nga bëre. mën nga xeex mais gëj a bëre bi ak compétition bi ñu mel ni maar la du la perte loo repère ci làmb. waaw boo xoolee boo xoolee gëjuma bëre trop sax parce que parce que dañoo damaa bëre yàggul corona bi agsi léegi jour presque làmb yi ñëpp a gëj a bëre temps yooyu mais du dara du dara parce que ñu ngi ñu ngi compétir ñu ngi contact ñu ngi def lépp kon nag gëj a bëre amu ci quoi. kan nga mujjee bëre. Euh, ma xool kan laa mujjee bëre sax naan faal yaakaar waaw ma jël marle waaw. préparation bi marle nee na day lekk yàpp naan meew jour combat bi mu ñëw la 25 ñi mu bëreel ci njool ma ne ko taay bi mu ne ñi mu bëreel ci njool ñoo la sut te moom bu la jàppee bu arbitre prix dina xeex dina la duma dina la daan loolu da xanaa doo ko seetaan. waaw moom loolu la ku nekk am nga droit wax sa bëgg-bëgg. la comme man rek di ñaan damay ñaan yàlla mu daan ko. parce que lamb noonu lay demee quoi lamb moom signature contrat daa mbër dafa yomb lamb ji bu arbitre ne prix koy song dama koy jàpp dama koy daan bu neexee yàlla. da jàpp ni day yomb ci. non lamb yomb amul. lamb yomb amul. ku yàlla may rek mu jour boobu mu gagné te na maa ngi naan yàlla may man dama si kawam. lépp la ñuy préparé daal lu mu soxla rek lu mu def rek ñu andi loolu amul problème. waaw ñun pare nañ ci fànn yëpp. dama gis mbër yëpp kuy ñëw ci signature bi day indi ay laar ay béjjën ay mais yow gisuma nga yor dara. xanaa moom si lamb seen lamb la rek ku nekk ak ni ngay ah. ñun amuñu problème yooyu li ñuy def daal def nañ koy ñu ngi ñaan yàlla mu may ñu dem si kawam. nga jàpp loolu ay xuuxalaat. waaw mais làmb mbër yi mbër indi na ñu daan ko mbër ñëw ne sottul butéel sax ñu daan daan loolu dara làmb la rek làmb boobu gars yi dañuy neexal léegi dañuy napp lii ay waaw ki da ngay gis ko andi lii lee lii andi lee lee boo dee ragal nag daw mais yooyu amul solo